loolu mooy dëgg euh, yàgg nga di euh, wax loo xamante ne bii nit ñi dañ ciy teg seen euh, bët. Mhm. may itam dañuy jàll rek ci beneen actualité parce que yaakaar naa ne coupe du monde jàll na. jàll na jàll na donte cool yi bari na. Mhm. mais beneen mhm. actualité muy wàllu mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr. waaw Cheikh bi. yan révélation nga ñuy def te parce que bi ñu waxee ni nañu usmaan Sonko ay garde corps am nañu moytu parce que. waaw gis naa ñu jàpp leen ni Sénégalais dañ ci teg bët. et puis mm-hmm. aussi euh, waroon dañu fàttaliku ne. waay waxoon nga ñu ne bu yàgg euh, Sadio Mané dafay blessé. surtout tey boo ñu dee waxaat ci usmaan Sonko Adji saar Adji Sarr li ma leen di wax nii nag bàyyi leen ko xel aji waxut. Mm-hmm. Adji Sarr. Mm-hmm. man li ma bëgg a xam mooy borom discours bi. xale bu jigéen bi toog di def discours bi barki démb mhm. kooku kan la ngeen na aji bu dee aji la kan mooy wax aji man damaa gëm ne aji waxut ki nekk ci ginnaaw aji di wax man koo koy sama problème ba jamono sosoo ba tey mas ngaa mas ngaa gis ku ñu violé ba noppi nga toog ci biir réew mi di bàkkoo naan dañ maa viole nii dañ maa def lii dañ maa def laa Adji Sarr moom ci boppam maa ngi koy moytuloo bu baax a baax a baax a baax a baax lii. daanaka gas ko suul dafa gën yeneen détails yi. di ñaan président de la république lii. na ci teggi tànkam ñaan lu ci teg ci tànkam. boo déggee loolu mooy. Mm-hmm. Euh, dossier yu bari ñu réew bu ko neexee mu teg ci tànkam. ñun ñi ngi ñaan président bi lii yàlla bu mu jóg kaw ndax wax dëgg yàlla. coow usmaan sonkook aji saar dafa dem ba jéggi réew mi. te man nii ma nii ñu ciy dundee ak nii ñu ciy doxee man wax dëgg yàlla neexu ma waaye Ousmane Sonko bàyyi nañ garde corps am yi de waaye na sécurité wu képp ku bokk ci Pastef te bokk ci bànqaas yi Ousmane Sonko. Hmm. na taxaw ci sécurité ñooñu. damay ragal Pastef. waaw <laughs> nañ ma déglu bu baax nag wax ji dana xaw a mel ni lu xoromo waa Pastef bu ngeen amul sens élection yii di ñëw ñu ci bëree bëree bëree bëree bëri élection yi ci kaso bi la leen di fekk. waaw waa Pastef nañu vigilant te noppi te nëbbatu ku ci moytuwul di wax ba dugg ndax jamono jii boo adatee baatu Pastef. Mhm. ba xool ko ci wàllum xilmu nujoom fii ak élection yi. seeni mbir day tàng jër. Mhm. te xam nga bu fekkente ne da ngay liggéey ci wàllum biddiw DJ mhm. euh, man bëgguma fenn sénégalais yi dama bëgg mhm. di wax wax joo xam ne dafay am bopp wala mu am jeen dëgg la moo tax euh, Pastef mhm. ñi fa nekk nañu gën a fegu nañu gën a yokk seen doole waaye Ousmane Sonko maa ngi koy ñaan yàlla wàllum wér gi yaramam mu taxaw ci maa ngi ko koy ñaanal usmaan Sonko maa ngi lay ñaanal sa wàllum wér gi yaram nga gën cee taxaw nga gën cee taxaw nga gën cee taxaw man de nii laay jàppe nit te bu ma jàppee nit lépp lu ma xam ne da koy gàllankoor dama ko koy wax te damaa gis loo xam ne ci wàllum wirgi gi yaramam la baaxut wér-gi-yaram Ousmane Sonko waaw li ci nekk baaxut te man jàmm laa ko yéene te damaa bëgg mu gën a fegu ci wàllum wér yaramam Ousmane Sonko. Mhm. ne ko waxuma la lekk waxuma la naan Ousmane Sonko na daw na daw na daw lépp na daw jépp waxuma ak mbokkam ak fameem mitin bi mu doon def est-ce que xam nga benn mbir nemmeeku tuur bi damaa gisoon loo xam ne dañ koo def ci njaq ñu bëggoon mu naan ci ndox moomu ci benn dëkk te sunkoo bu naanoon ci ndox moomu du fa naan am bopp fiir nañ ko ci njaq njaq loo xam ne ci biiru dëkk la nekk ci nemmeeku tuur bi Ousmane Sonko fiir nañ ko ci café dafa rëcc. waaye Cheikh bi xanaa ban xanaa ban léeg-léeg gars yi dañuy jékki-jékki na ma. sëñ Mara da yori sëñ Mara sa jinne Ousmane Sonko ci nemmeeku tuur bi. dama ne la man Serigne Mara maa ko wax. fiir nañ ko ci njaq loo xam ne def nañ fa loo xam ne bu ko naanoon du fa fiir nañ ko ci café waaye est-ce que xam nga benn mbir. Hmm. bëri na sëriñ soo xam ne ñi ngi fii ci dëkk bi di seet. Ousmane Sonko sax moo leen dàq seet xam nga loolu. Mhm. est-ce que xam nga ne Sonko day jekki-jekki orchestre bi di kii bi convoi bi di dox ba yàgg mën a leen bu leen jaar fee jaar leen fii te jaarul foofu foofa jëye day am. dafa am xam-xam. li gën a jafe la am mooy sax xam-xamu ceet. ah bon. waaw sëñ Mara Niass Ousmane Sonko <laughs> toogoon nga fi nag wax ñu ay ay révélation ne Waly Ballago Seck day seet xanaa da nga bëgg a wax Sonko day seet. Ousmane Sonko dama ne la dafa am xam-xamu seet. gis te daf koo yor. day gis day gis est-ce que xam nga ne Ousmane Sonko xamoon na ne état wu dañ koy fekk si wut bote nga xam nga ko. déedéet Sonko xamoon na ne bi muy dem di faju ju digg ginnaawam ñi ngi koy topp. te jëyya dina am foofu ci biir Sénégal loolu nag ku mënul seet doo ko gis barke yonent yàlla Muhammad laa lay giñal Ousmane Sonko xamoon na ne bërëb ba muy dem di faju ñu ngi koy topp te coow dina fa am te coow li bu jógee du baax ci état bii fi ne moo tax damay faral di ko wax ma ne état bi xanaa amuñu ay seetkat wala ay sëriñ mhm. te ku yàlla di bind ci jamono ji Sénégal man maa la dàq gis maa la dàq seet te li may dugg ci ak seet di ko gis ci biir famille yi bu ma ko doon wax àddunay tukki est-ce que xam nga beneen mbir. Mm-hmm. fii ak élection yi. Mm-hmm. Ousmane Sonko dina fi am lu tolloog téeméeri téeméeri téeméeri turandoo ay Ousmane Sonko dana am ci réew mi. ay nit yi ñu tuddee Ousmane Sonko ay xale yu judd ay xale yuy judd yoo xam ne man nag léeg-léeg damay wax loo xam ne sax waruma ko waruma koo wax ah, barke Serigne Bamba Mbacke ban li ngay wax alors li may wax parce que itam ci seet sëñ Mara dañu la namoon ci seet <laughs> parce que te dinaa seetal gars yi tey ci ligne bi dafa bari ba vraiment surtout euh, surtout te euh, da nga war a concentré wu dëgg dëgg dëgg dëgg ci seet bi parce que loolu la la Sénégalais yi bëggee dëgg la moom la ñu xamee moo tax tey dinañu may aussi euh, opportunité li nga xamante ne bi ay quelques nit yoo xam ne dinañ leen seetal en direct fii nii ci Feeling Dakar surtout ca kanam surtout na ñëpp dugguma seetal seetal leen ca kanam ca kanam dinañu maye te ku ma ci seetal ba wax la sa sarax bul taxawati fenn di def ñaan barke yonent yàlla Muhammad ku ma ci génn loo say sarax boo defee say sarax jërul ngay ñaan lu est-ce que xam nga beneen mbir. Mhm. dama fee gis tawub noor ren. tawub noor. tawub noor ci réew mi te taw boobu day yóbbee daw xaaral ma tëje sonkoo doo a tëjee lee puisque tey li ma war a joxe ci réew mi dafa bari ah. <laughs> waaye Ousmane Sonko ci turandoo yi lañ toll te Ousmane Sonko ku ko tuddee doom fii ak élection yi di ñëw buñ ci amee cent onze turandoo. cent onze dafa bokk ci liy dooleel Ousmane Sonko. pour mu nekk président pour mu doon président de la République. cent onze. te gis nga bu loolu amee. san 111 turandoo. 111 turandoo fii ak ñuy dem ci élection mais xanaa kon loolu sarax bi la bu gën a gaaw ngir mu jël réew mi. waaye loolu waxuma la dara waaye li may wax mii gis nga li may wax nii 111 turandoo 111 turandoo Ousmane Sonko. fi mu ne lii mooy politique bi gën a gaaw ci moom boo ko defee jërul muy campagne fii ak yi yi 111 turandoo Ousmane Sonko. man mii sax de ma fi amee góor ci diggante bi moom laa koy tuddee danaa participer li ngay wax nii c'est-à-dire euh, Ousmane Sonko campagne am deux mille vingt deux mille lan la élection yi vingt trois deux mille vingt quatre deux mille vingt yi kay sax commencé na fi mu ne ñu ngi campagne dama ne la bu boobaa jërul muy def campagne man damay gis cent onze turandoo lañ ko laaj. cent onze turandoo waa Pastef war ngeen a góorgóorlu. cent waa fi moom waa Pastef moom ku ci yor soxna booy boo nga farlu ba bu fi indi jigéen <laughs> waaye bañuñu sax jigéen na doon góor ak jigéen Ousmane Sonko san onze lañ soxla. même bu dee jigéen sax ñu tuddee ko Ousmane Sonko bu dee ji moom daal Ousmane Sonko liste bi na taxaw. cent onze bu boobaa jërul campagne. te Macky Sall ci kattanu nañ fexe Ousmane Sonko nag maa ngi wax lu doy waar loo xam ne nit ñi dañ koy fawe. Mm-hmm. dama gis lu rëy. lu ko nara a gàllankoor bëgg koo yàqal élection yi xam nga booba tey maa ngi ciy wax te nit ñi joxuñ nit ñi wuyuwuñ ma. bien sûr ba noppi ma wëlbatiku na leen bu ko yàlla mayee bakkan te mu bokk ci élection yi ci kattanuk suñ borom Macky sàll bu àndoo Sonko toog ay waay li may gis ci seet bu ma ko doon wax àdduna tukki di jë bi ci topp mooy. 111 turandoo yi nan ci farlu ndax jamono jii may waxeek yow mbiri usmaan Sonko. dafa am yeneen mbir yu ci war a feeñaat nag coowal suuf dana ko topp <laughs> coowal suuf coowal suuf ci Ousmane Sonko. waaw na def tere attention jamono jii coowal suuf ci Sonko Sonko dafa mel ni man ak moom dañoo bokk ndey ak baay. mais Sonko li tëdd ndoog lal. impôt impôt domaine la nekkul sëñ Mara ah. mosu fa am coow coowal suuf ba. dama ne la ba jógee impôt domaine ngay fii ak élection yi dafa am ah. mbir yu war a xeexee xanaa kon këram lañ war a nangu. ah waxuma nag coowal suuf ci Ousmane Sonko bi ma koy seet xam nga noonu ñu andi. trois biu Ousmane Sonko taxaw ci dafa reer rek dawaat dugg. ma lëj mbataat seet gi ci li nga xam ne moom laay jëlee chiffre yi. Hmm. Ousmane Sonko jël chiffre cinq bi ma ko wàccee muy doxal ak wàllum wéradiw yaram ci Ousmane Sonko Sonko Sonko Sonko. nga xam ne li wér wóor mooy sénégalais yi parfois man damay jékki-jékki ma ne gan Sénégal lañ ne est-ce que man li may gis ñu ngi koy gis. Macky Sall xam nga ne nguuram gii bu jeexee. Hmm. dana jiite waat geneen nguur. quelle révélation mais sëñ Mara nag attends. Euh, may lëmbe fépp. sëñ Mara Macky Sall nguuram gi gu jeexee dana jiitewaat geneen nguur nguur ga muy jiitewaat nag xam nga bu ma ko waxee débat am duma ma ne la du ma ne bitim réew la waaye Macky dana jiitewaat geneen nguur lii la ma nit ñi xamee di génn di def ay yoo xam ne ay dat lay doon te dinañ ci yegg. mais léegi sëriñ sépp ngi roy sëñ Mara nag am na ñu ma seetaan sax ñu naan Sonko <laughs> yàlla yàlla def jàmm Macky sàll ci boppam. nguur dafa yàgg ci loxoom te Macky Sall nguuru Sénégal gi bu ci noppee dana jiitewaat geneen nguur. dafa am ay sëriñ yu wax ne Ousmane sonkoo dañ ko génneel ay fas danga nga bokk ci sëriñ yooyu. bokkuma ci de sonkoo sonkoo dégluwu leen sax fas yi lan fas baaxut ci nguur Yaya Jammeh ban ko wanee fas wa keroog la wàcc Yaya jàmme keroog bañ ko wanee fas wa dafa wàcc. moo tax Macky Sall ñu koy wax ay saraxi fas ak ay nangami fas ay nangam ay Sonko ñi koy diggali fas bëgguñu Sonko. ñoo de saraxu nit nga joxe nit. man saraxu nit laa joxe. <laughs> te kenn joxe gu fi sarax man saraxu nit te nit ki dama dama di lu leer teg ko ci taabal ji. Mhm. saraxu nit moo fi am beneen sarax amu fi. Sonko saraxu nit la war a def. alors 111 moo tax Pastef waaye. ok <laughs> bi na mel ni tuq ci benn saañ ba réer. nañu nañu takk nañu takk ku nekk Pastef yéen yaay yi nga xam ne yéen a nekk Pastef yaay yi génn leen xale yi ñu sëyi paa yi nga xam ne yéen a nekk Pastef génn leen xale yi ñu sëy yi ndax dañoo war a am 111 moo mooy lim bi saa 111 Ousmane Sonko yu ndaw. Hmm. saa 111 Ousmane Sonko yu ndaw. moom la ñu war a rëtëbal Sénégal Sonko jël réew mi. alors loolu mooy tax mu jël réew mi. wala bokk na ci li tax mu jël réew mi. mais pour fa pour. bokku ci de looloo tax. loolu day am ci kattanu suñ borom. il faut mu am 111 turandoo yi. 111 yi fokk mu taxaw. pour faag ko ci euh, fa euh, ñi nga xam ne dañ koy faagaagal pour mu mucc ci aussi ban sarax la war a taxawee. Euh, sarax bi dama ko waxoon ba wax wàllum sécurité bi. Ah, waxoon nga ko de. ñu ñu ñuy def maa yu fi mu ne nii dafa am lu xew tuuti nag Ousmane Sonko jamono ji dafa am tuuti lu ñu ko war a génneel sarax te nit ñi dañuy fàtte sarax boobu nañu wut ay bali fëgg jaay ñu yóbbu ko ci daara yi. ñu boole ci ay dàll waaw ay dàll mën nañ koo yóbbu ci daara yi jox ko ay xale bali fëgg jaay ñu boole ci ay dàll bu fekkee bëgg na aw yoonam yegg te gis nga lii may wax mhm. ku yàlla bind mënoo ci dara dangay toog rek naan sëñ Mara lu mu wax nii Ousmane Sonko nañ ko génneel bali fëgg jaay ñu boole ci ay dàll Ousmane Sonko këram li ko wër lépp ndox la xam nga loolu mhm. Ousmane Sonko. këram gi mu dëkk dama ne la li ko wër lépp ndox la cité bi mu dëkk. ñetti président war nañ faa jóge placé boo xam ne xaaral ma noppi foofu sax damay bañ a wax leneen xool li góob. bi mu dëkk ñetti président ay waaye bu leen ma wax loo waaye bu leen ma wax loo Mara il faut nga wax parce que itam tey yaakaar naa bala ñoo jël nit ñi euh, di leen seetal tey dinañu euh, jël ay euh, quelques personnes yoo xamante ne bi ku ci.